c'est la star. moom de tënk na tëj tëj na moom tëj na. mais mais Jackson. ñu ne kenn mënut ci dara Jackson de tëjal na boppam. last question bi de tontu ko. last question bi tontu ko mais garaawul. non dama bëgg xam rek ndax sa copain déggante ngeen. waaw. waaw. ayca waagaan baax sama baax na jërë ngeen jëf mbokku internautes yi sama gars yi maa ngi leen di nuyu univers Dakar live Bprod Pro Média sama gars yi tey ñëw nañu ba aéroport gis ngeen ko nag sa mi ngi naan mais mais lu xew ak fan ngeen jugee fu ngeen yëgee ne damay ñëw mais xam nga ñun moom gars yi danoo sob fi ñuy loxatee bagage yi mooy loolu ay renseignements maas na ay renseignements généraux la ñu yor mais ñu seet si suñu waay nag euh, juste muy door a jugee Genève dégg ko mu tukki woon Ameth Jackson bàyyi woon na coow ginnaawam Sénégal mais tey ni mu dikkee jàmm laa paix dafa mel ni la woote sa parce que tout blanc sama waa ne sant yàlla di wax alhamdulilahi rabil alamin di sant yàlla bu baax buuri buuri da nga sant bu baax di julli ci yonent bi sant suñuy waajur suñu yaay yëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp. Mhm. di leen ñaanal jàmm ak tawfeex ak sutura. Mhm. ñaan ci réew mi jàmm. Mhm. demoon nag mission. sama njiitu réew. rek laa demoon waaw. dem mission seen njiitu réew. waaw comme ni ko soldat yi di may citoyen mu war ma nag xam nga ànd ak ay kilifa yoo xam ne ñoo ci état ma dem wane ni président def ci réew mi ma dem wane ko bitim réew mission boobu laa demoon doxi eh, ma sant ci yàlla nag wax ci alhamdulilahi rabil alamin ndax sénégalais yi nekk foofu teeru nañ ma teeru boo xam ne wane nañ ni ñoom bëgg nañ président Macky Sall wane nañ ni ñoom li ma woy président Macky Sall saf na leen neex na leen Sénégal demee football yi comme ni doomi Sénégal yi nga xam ne ñooy jël drapeau Sénégal di ko wane man noonu laa demoon doxi en tant que citoyen wax Sénégalais yi li président liggéey ci réew mi woy ko bëggal leen mission boobu laa demoon doxi alhamdulilah rabbil alamin yegsi naa ci jàmm mais gis nañ gis nañ soirée bi jot nañu ci vidéo yi mais ça a été nice na macha allah waaw non foofu moom toj na parce que mitin la woon bu xam ne Genève la woon ak biir Paris waaye nag Europe gépp dajaloo ndax bi def Genève Espagne France Italie Belgique Hollande kenn desul ñëpp ñëw bi ñu defee France tamit noonu la ko gaa yi defaatee ñëpp ñëw wara ni président Macky Sall daal liggéey na ci réew mi loo xam ne jar nañu sargal man nag dama nekk nit koo xam ne wax naa ko fu ne du moom rek président Macky Sall dafa def ci réew baax doomam di suma rakk xam li mu def lan gëstu ko ba pare nag doog ko wax eh, te loolu nag suma fierté la ndax man Sénégal yëpp ma bëgg moo xam ñu nekk ci opposition ñu nekk fii ñëpp samay xarit la ndax tey suma kër bi ma toogee di añ man ak gars yi ñii dañuy far fii ñu ànd kafre werante ba mu neex ma génn romb leen teg sama morceau président ne leen bi may ñëw bi may dem Europe man ak sama ñetti xarit yoo xam ne danoo bokk ci opposition ñoo añandoo añandoo def lépp man leen maa ngi dem bégal yi ndaaral ñu ne ma noo ko ma mën a ko ndaaral li muy te loolu mooy Sénégal jàmm la xam nga loolu daal laa demoon doxi sant naa ci yàlla yegsi naa ci jàmm waaw macha allah ca été ni mu jàlle am na solo liggéey ba am na solo mais laata ngay dem nag Ameth nga bàyyi ci lu rëy Sénégal Ameth <laughs> Thiou Waly Faramareen Ramdan ba jot nga communiqué sax ne bàyyi nga Ramdan léegi da nga jël sa yoonu bopp waxoon nga avant loolu it hmm. kontaanuma ci Waly coow loolu wax jooju jiwoon ci coow lu rëy nga teg ci ne bàyyi naa Ramdan mu gën a tàng lan moo xew ba loolu lépp man damaa xamul lan moo Ah, bërëb boo def vingt liggéey fa ki ko sos gërëm la ba war la ginnaaw ñaanal la mm-hmm. ah na nga doon ànd ak moom waaw ci ngor ak dignité mm-hmm. ak dëgg mm-hmm. noonu laa ànd moom ba mu woon ma ginnaaw te man ci dëgg rek laay dox mm. xam nga nag senegal waaw nanu bàyyi xaste mm. xaste baaxul am na ñu bari ñun war xas am ñu bari ñu war a xas te duñ leen xas te leen war a xas mhm. ay gor lan ay doomi garmi lan danoo am juddu moo tax duñu xaste waaye di yebal ay nit ñuy xas ay gor di yàq ñu ne ay gor loolu nañ lu koy def léegi góor ñi ñooy xaste man nag góor bi xaste dama lay jàppee ñaari tur yi góor dëgg du xaste waaw gentleman du xaste non gentleman du wax lu ñaaw surtout jullit du wax lu ñaaw du def lu ñaaw boo dee garmi ñu jur la fi la war a juree da xam ne ngay wax surtout tamit nga dugg ci loo xam ne xamoo ko sooy yow da fekk ànd boo xam ne fekke ah, ànd boobu jiitu na lu bari tey ki ko sos dañ ko mu bari ma ànd ak moom ci lu bari ànd ak moom ci ngor ak dignité ba mu xam ko man su ma toogee bërëb boobu ma toog ba neex ma. doon ak coon ba ko sekk. ci dëgg ak ngor ak dignité. Mm-hmm. su ma demee bëgg dundaat loolu ñu ma doo fi dundee ci dëgg. ah man ma defar naa su bopp man damay gis dëgg di damay gis dëgg di ko wax. ma tudd. waaw parce que tey am na ñuy wax. waaw te ñuy wax dañ leen a wax loo. waaw ah, man nag mm. dama ni. ñiy wax mhm. ñi leen yónni mhm. nañu arrêté yooyu ndax xam tax li ñu xam bari na te damay sutural mhm. sama waa ji ma wax lu ñaaw barke yonent yàlla ma day mu doon borom jàmm yi nga wesan sàmm di géwul Cheikh Ibra Fall xaw ma lu ñaaw du ma wax mais dama dëkk bi leen fi xam bari na te yëf yi yàggul bi mu yàggul te li ñu xam bari na nan rafetal lépp ànd ci ngor ak dignité dina rafet amet mais duñu ma rek nanu rafetal lépp ànd ci ngor ak dignité ñi nu war a xas bari na te duñ leen xas yaa ngi baamtu loolu te ñi leen war a xas duñ leen xas parce que ñooñu ay doomi gor ay garmi la am na ñoo xam ne yomb nañu xas mhm. te kenn du leen xas mhm. man bokk du ma leen xas ndax bu ko defee rek war nanu rafetal lépp ànd ci ngor ak dignité société la laa doon liggéeyee gis naa fa lu ma lu ma neexul wax naa ko ñu war koo réglé réglé wuñ ko Thione Ballago Seck di heure bu ma wax ci moom lu ma métti wax ko ci bu ci biir groupe bi gaa ko daf may woo ñu rayante ci dëkk après mu suñu jeex kenn du ko yëg barki yonent yàlla parce que esprit grandeur boobu la yoroon alors que léegi nag ñit ñi dëkk ci dëkk bi yor ay njaboot yor suñuy waajur nefi ñoom ay doom ñi jàngi école barki yonent yàlla Muhammad billahi wallahi mm-hmm. sama doom Amady bu ndaw am na seize ans dix-sept moo mm-hmm. ne ma papa mm-hmm. tax ñii di wax wax te man papa yow man xam naa la. ndeysaan boobu bi ma koy wax boobu maa ngi ci métro bi maa ngi ci TGV bi di dem France maree noppi. te man dama jot ay appel yoo xam ne. ci ay kilifa bi ma yéegi bi ma demee xaw moon ni sax affaire bi noonu la toll kilifa bu ne di ma woo. alors su ma bëggee nag maa ngi leen di jéggalu sax parce que ñoom bëgguñu wax lii bëgg ñu arrêté. wax na gars ah. nag. Hmm. menace la wala non dama ni nanu arrêté wax ji xamul tax. man dama yor association yor naa ay mbokk yor naa ay géwél yor naa ay waxkat te ñoom dañuy créé te man créé ma man dama fekk démb bu fekkee nag hmm. dañu continuer di wax am na ay waxkat de dama leen jox ñu wax te li ñuy wax yëpp ay preuve lay de nanu rafetal lép hmm. parce que fii lu ne am na fi Ablaye Wade mooy sunu maam mooy président nekkoon fi président. tëj nañ ko génn ñëwaat da ko tëjoon dugal na ko ci gouvernement ñu àndaat dem fii lu ne mën nañ ko régler mhm. mais am na am na noo xam ne bu ñaawee rek dootul dootul baax dootuñu ko mën a régler noonu rafetal lépp nanu bàyyi ñi ñuy fayal ay appartement di leen yónni pour ñuy xas seeni nawle nit da ngay fonk sa nawle nawloo sa nawle déglu rek nit da ngay nawloo sa nawle fonk sa nawle <laughs> nawloo sa nawle say nawle <laughs> boo leen nawlowul duñu la nawloo li da ngay say nawle ci réew mi lañ dëkk mhm. liggéey ci réew mi mhm. bokk ci réew mi tuxuñu naanuñu sàcc ñu duñ ay malfaiteur sàcc ñu topp ñu ay jabaru jàmbur nañ ñu bàyyi ci jàmm nañ ñu bàyyi ci jàmm ñu liggéey ci jàmm ak ngor mais Ahmed est-ce que nag il est temps jotul waa temps il est temps jotul nag nga ah. bàyyi junj bi c'est parce ah. que sénégalais yi soxla ah. na noo xam lu leer non may ma may ma ñëw waaw may ma ñëw lu leer lu leer moom attends sénégalais yi soxla na noo xam lu leer lu leer doo leen ci man ci lu ñaaw non waxuma lu ñaaw non man man ma wax lu ñaaw waaw mais attends nar ma woon sax waa d'accord wax ci lii may jégalu kilifa yi ma ñaan ñëpp lekk waaw raam ndaan laa bokk waaw ah, def fa vingt ans. waaw am fa lu ma metti loo xam ne moom laa dund ci vingt ans yi. waaw Thione Seck ku ne xam ne ni dëgg rek lay nangu. Mhm. te yéen ñii di wax xam mhm. ngeen ni Thione Seck am na fu ma tegoon. dëgg ci dëgg rek lañ ànd. dëgg la googu may ànd ak Thione ah. noo man kenn du ma xañ sama indépendance may wax dëgg. da koy nangu ma la koy wax su ma la ko waxee boo ma ko bëggee xañ bëgg def neneen. Ah. jar na man ma jël sama yoonu bopp te nag fii nag Sénégal dafa yaatu. reggae man yaa ngi fi funky man yaa ngi fi rappeur yaa ngi fi mbalax man yaa ngi ñëpp ngi fi. mais su ma déggee kon waaw may sa waar. def leneen may ma laaj su ma la déggee kon sa indépendance bi nga am ci biir Ramadan. waaw da nga ko amatul. su ma la déggee kon waaw may waaw. na yéen da ngeen bëgg waaw. dëgg xam nga dëgg ngay dund waa pardon rek baal ñu comme xas na nu am lii rek te la ah. comme dëgg ngay dund ñu xañ la fa sa indépendance te foofu leader bi ku nekk xam na ne Wally la sa diggante ak moom la ba nga ne kontaanoo ci moom sénégalais yi loolu lan soxla loolu loolu waaw ba allah yow diini waaw man ak moom la parce que dama koy répété waat waaw sama rakk la sama doom la waaw waaye nag kilifa la te kilifa kenn du ko yedd ci mbedd ah mais ba dama ne déglu ma rek kilifa dama ne kilifa la non kontaanu ma am na dara wax ko mais loolu kay du dara mais am na ay ñu gën a garaaw li luñ ko wax moom mais c'est que ki wax la Jackson moo wax. loolooy problème bi waxee dañ koy jël def ko nag waruñu waruñu cee wax dara léegi nag affaire bi dafa fu mu yegg te waru fu mu yegg moom moom mbili gi na ma woo ma wax ko li mu ko bëgg wax lan la xam na ma xam. moom waali dégg nga non ma ni. na bu bëggee mu fay bu bëggee yëf yi fay waaw. na arrêté na alerté ñii wax ñii wax. waaw na leen que xam nga lu ah man samay waajur ñu ngi fi de. te te nag garmi laa doomi garmi laa te dama liggéey ci réew mi. man du ma nangu déglu ma rek rak du ma nangu sama wax ji na nga wax ne bu ma ci waxee pare naa dama sonn. waaw déglu leen ma rek déglu ma non fu loolu fan laa am arrêté loolu man. ah loolu. daal. wax ju ñaaw. waaw rafetul. wax ju ñaaw doo ko wax sa nawle. wax ju ñaaw doo ko yónnee di fay say nawle bi koy wax man ñuy wax xaw ma leen lijjantiwu ma leen te am na ñu ma ci jot a xam. Ah. ci dëkk bi leen dëkk nag. waaw man a ñoom man booy baax yéelaate. nanu pare. da ngay képp ku ma ci wax wax ju ñaaw. Ah, na nga pare. te xam ni danaa jëflanteeg yow parce que sequma ko ak yow non sequma ko ak ñoom non sequma ko ak ñoom sequma ko non man man sequma man Macky Sall laa demoon seetaan moom laa demoon tëggi président Macky Sall laa demoon liggéey yi non kooku anyway du ma wax ci yooyu gërëm naa daan ah sant naa Ramadane maa ngi gërëm waa Ramadane gépp maa ngi sant waa Ramadane gépp ci ngor ak dignité bi ma ànd ñoom maa ngi leen di sant di leen gërëm ah di gërëm Sénégal di baalu ak Sénégal ah parce que wax lu ñaaw xamuñu ko te duñ ko wax ñu ngi jégalu ñëpp di baalu ñëpp <laughs>